auzu billaahi mina seytaani rajiim auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wa rahmatulaahi wa barakaatuhu faay mën a nekk ñëw leen di siyaar di leen ñaanal jàmm gudd fan wér-gu-yaram xéwal gu yaatu defaraat nag àlaaxira rawatina yéen ñi abonné ci Daaru si faaw ñëw leen baax a baax Daaru si faaw dana seet bu la seetalee wax la sarax wala wax la sa càngaay fa ma dem dem defe jóg tey dañu indi secret istixfaar ak salaatu ala nabi ak laa ilaha illallah nga xam ne ñett yi moom mënuñoo tàggoo istixfaar nag yàlla ñu ko diggal ci alxuraan ne istaxfiru rabbakum innahu kaana xafaara jéggu leen seen borom bu ngeen jéggalu suñ borom suñ borom dana leen jéggal ba jot a par mu ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallama taslima bi ci toppaat mu ne la man na annahu la ilaha illa allah kon ñett yooyu moo ñëw muy la am solo nag ci nit ki war na saa bu xëyee def ko muy wirda nit ki saa bu xëyee war naa def astaxfirullah téeméer bu paree mu teg ci allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim téeméer bu paree mu teg ci laa ilaha illa allah téeméer astaxfirullah ji nag mooy tax ñu koy jiital mooy da seet ci bàkkaar ba pare boo seetee bàkkaar ba pare nag nga wax ak yàlla ci yonante bi muy julli ci yonante bi allahumma salli ala sayyidina muhammadin ba pare nag nga wax ak yàlla directement ba pare nga ñaan ko soxla ak lu mu mën di doon ak soxla bu mën di doon suñu borom dara la laa saafara soxla soxla soxla ndax seet nga ci bàkkaar wax nga ak yàlla ci yonante bi mooy julli nga ci yonante bi ba pare ne léegi jàkkaarloo suñu laa ilaha illallah laa ilaha illallah ju sell ba pare nga ñaan soxla ci kàttan suñu borom sa mbir yëpp mën naa yomb te lii képp ko saxoo foo mën di jëm tamit bi nga am ngërëmul suñu borom tabaraka wa taala te ngërëmul suñu borom moom la ñëpp di wër ndax astaghfirullah cent la salaatu ala nabi cent laa ilaha illallah cent muy trois cent boo gisee radiya ji ma def radiya raa bi deux cent la daal bi quatre vingt la yaa bi la muy trois cent kon ku sax ci lii di nga am radiya ji radiya nag moo ko suñu borom tabaraka wa taala gërëm ndax moo ku set ci bàkkaar di julli ci Yonent bi guddeeg ca suba ngoon di wax baatam laa ilaaha illallaah ju sell ja suba ngoon gudd suba ngoon da nga tasee ngërëmul yàlla te ngërëmul yàlla képp ko taseeg moom nag sa mbir day lijjantiku àdduna ak àllaaxira kon yàlla na yàlla dugal ci biir yërmandeem ja yàlla na yàlla yàlla na yàlla may ci yërmandeem ju yaatu joojee te doyoo ko dara jaamam ñi rek la ko fi bàyyil kon yàlla na suñu borom may kon ñëw leen ñaar leen ñaanal jàmm guddi fan wér xéewal yaa defaraat naka la xéewal salaamaaleykum wa rahmatullaahi wa